yow mi nga xam ni yaa ko fekke itam sag njàmbar taxul nga fekke ko loolu yëpp ay ngëneelam la ak i xéewalam ndax kenn ku nekk bis dina ñëw ci yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu riñaanee bi mu gisee malakul mawti laaj na ko nan ngay xamee nit ku war a dee mun ko gis nga garab gi ma tiim doomi aadama yi yàlla bind yëpp xob wu ci nekk turu nit a ngi ci ak fa mu dëkk heure bu waree génn àdduna rek xob woowu day ñor daa di wadd wow su ma ko xoolee xam ni diw ca dëkk sàngam tey moom laa soxla moom laa war a dem jëli kon foo manti ne ni ko borom bi waxee indal mawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum foo manti nekk rek di ko daw dana la fa fekk bu njëkk malaakal mawti su daan ñëw ci nit dañ ko daan gis am na benn bis mu ñëw doon seet si yonent yàlla Suleymaan fekk fa benn xaritu Suleymaan bi mu génnee rek xarit bi ne yonent yàlla Suleymaan kii kan la mu ni ko kii kii mooy malakul mawti mu ni ko laa ilaaha illallah dimbali ma génn ma dëkk bi soril ma fii yëpp yonent yàlla Suleymaan yàlla da ko mayoon xéwal am na ngelaw loo xam ni tukki boo war tukki weer moom ci benn ngoon rek mën na la caa yóbbu yonent yàlla Suleymaan daal di koy booleeg ngelaw li mu daal di koy yóbbu Inde bi ñu toogee ab diir ay weer malaakal ti ñëwaat fa waxtaan ak Suleymaan bay tàggook moom rek ne ko waa Suleymaan ana ki ma fekkoon sa xarit bi ma fekkoon mu ni ko moom de léegi Inde la nekk mu ni ko alhamdulilahi rabbil alamin Suleymaan ni ko loxew mu ni ko yàlla damaa digal ma rey juróom-ñaar fukki junni nit ñu nekk Inde te moom itam yàlla dane woon naa ko re comme dem na Inde nag damay noppalaale benn yoon dee lu ñuy daw kon bu ñu yàlla may xéwal ñu fekke woon ko daaw fekkewaat ko ji dañuy sant yàlla ci loolu wëlbatiku mayuñu wér am na ñoo xam ni fekke nañ ko wante wérug ñëw ci amuñu ko kon bu wëlbatikoo mayaat ñu wér kon dañuy wëlbatiku santaat ko ci loolu ndax lii ñenn ñi di ñaan moom lañu yàlla booleel mooy tawfiq ak siir ak najaax tawfiq mooy fekke nga jàng yi fekk na la ngay dund taysiir mooy yàlla may na la loo ca demee ak loo ca def najaax mooy yàlla dimbali na la ba la nga ca def yëpp dara lu la yàllay jëppee amu ci kon yàlla nañu yàlla defal yooyu yëpp defal nañu tawfiix defal nañu taysiir yàlla nañu defal it najaax kon ñu koy sant ci loolu bu baax Ah, di jéggalu bu baax nag euh, yéex gee ñëw ah, ndax bokk na ci li ko waral ñàkk a wér tey jii su ma waxoon sama waa ni leen fii laa jëm si am na ñoo xam ne da leen jaral ñu tëdd ci ron oto bi waaye duñ ma bàyyi ma ñëw waaye loolu yépp xéwalu yàlla la ñu koy santee bu baax loolu mu mel ni ay mbokk rek ñoom ñoo fi daje mbokk nag ñaari xaaj la ba ñetti xaaj mbokk mi nga xam ni yéen bokk jóge ca aadama ak nu mu manti mel sa mbokk la donte bokkoo leen diine sa mbokk la ndax yéen bokk jóge ca aadama moom la ñuy wax euh, al uxuwa min jihati tiin ak mbokk mi nga xam ni yéen a bokk doon ay jullit loolu la ñuy wax uxuwatul islaam mooy li yàllay wax innamal muminuuna ixwa ñi gëm yàlla ñépp ay mbokk lañu ba ngeen nekkee ay mbokk lu ngeen war a def fa aslihu bayna axawaykum fa ndigal la mu ni kon aslihu na ngeen fexe ba yéwénal bayna axawaykum ci seen diggante seen mbokk yooyu yéwénal gi yéwénal gi yëpp nag na ànd ak wattaqullaa na ànd ak ragal yàlla lan la yàlla jublu ci yéwénal leen seen diggante ba pare wëlbati ko ni nga ragal yàlla ci biir ndax buggul nga faral nga sa mbokk nekk ci naka sudul noonu sax doon gi mu doon sa mbokk tax nga ànd ak moom ci loolu su boobaa ragal yàlla dootu fa amati te mbokk ay àq dafa dox sa diggante ak moom am na geneen mbokk mooy mbokk gi nga xam ni da ngeen a bokk ci deret wala ngeen bokk ci meen kooku tamit sa mbokk la am na ay xàq yoo xam ne nii dox na sa diggante ak moom yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni ñaar moom yàlla du ñoom duñu ak yàlla ëllëg yowmal xiyaam ñu ni ko ñan la mu ni mooy ki nga xam ne day dog ak mbokk ak ki nga xam ni day dox di yombaaj di indi luy jaxase luy féewale diggante nit ñi nee na ñaar ñooñu duñu gisanteeg yàlla yoomal xiyaam te duñu dugg àjjana ñoom ñaar ñooñu yàlla nañ ci yàlla musal ak mbokk yàlla da ko fonk ba bi mu koy wàccee ci kaw suuf dafa jooy langaamu ni duma dem yàlla ni ko lu tax doo dem mu ni ko dama bañ ma wàcce ci kaw suuf ñu di ma dog yàlla ni ko demal yow yaay raximu man maay raximu képp ku la jokk dinaa ko jog te képp ku la dog dinaa ko dog dafa am ñaar yoo xam ne bu ci ne ci turu yàlla la jóge raximu mooy mbokk mu ngi génne ci turu yàlla bu ñuy wax raximu bi firi yërmande euh, islaam jullit lislaam wala muslim mooy jullit mi ngi génne ci turu yàlla bu ñuy wax salaamu bi firi jàmm moo tax pour nga nekk jullit foog nga jàmmoo li yonent bi naan euh, mënoo nekk jullit mukk fekk yéene woo sa moroomum jullit li nga yéenee sa bopp bu yonent bi ne mënoo nekk jullit fekk yéene woo sa mbokkum jullit mi li nga xam ne yéene nga yéene nga ko sa bopp olof bi jug ni sama boppam la gënal du bañ naa la loolu ban ban place lay taxawee ci xadis bi mënul nekk sama boppam la gënal kay mooy bañ naa la rek ab jullit boppam li Sëriñ Tuubaa wax ci nax ju xadaay inna axaakal xaq man kaana maak wa man yaduru nafsahu li yanfaak wa man isa raybu zamaani saddaak sattata fiihi samlahu li yajmaak loolu mooy mbokk mu ni sa mbokk dëgg mooy kiy nekk ak yow ci lu neex ak ci lu naqari mooy ki nga xam ni ak sag njariñ jaral na ko sax mu loru waaye nanga jariñu yow ki nga xam ne day lor boppam ngir jëriñ lax nee na kooku mooy sa mbokk sa mbokk mooy ki nga xam ni su la waa àdduna bi yëpp ŋàññoon xas la sikkal la moom jaral na ko sax mbooloo mi mu am mu tasaaroo te fexe ba dajalewaat sa mbooloo kon loolu moom mooy mbokk waaye boo toogee di di di fëgg dënn naan sama bopp ma la gënoon du bañ naa la loolu moom tegawul fenn muhaajiruuna yi bañ fekk jee lansaar yi mooy ña gàddaay woon ba ñu fekk jee waa Medina ya waa Medina yi nangu tuub dugg ci lislaam teral leen ñoom ñëpp ku ci amoon tool da nga koo xaaj ci digg bi jox sa moroom ku ci amoon kër danga nga koo wàññi yenn néegi jox sa moroom lépp lu ci nit amoon ci alal rek da koo séddoo moroomum jullitam mi nga xam ne moom moo jógee màkka kon loolu moom mooy mbokk ñu góor góorgóorlu ci sàmm ko bu baax te xam ne alalu yàlla la yàlla da ko fonk ba ñetti cër ci doomu aadama ñooy doxuk mbokk benn cër saxu ci karaw xam nga karaw njàqare la tey boo géntoon sa bopp bi sëq ak karaw sax dañ lay wax ne la di nga am njàqare moo tax ñetti cër yi nga xam ne ñooy dox mbokk amu ci benn cër buy am karaw mooy saw làmmiñ ak sa tenq lii ak sa ndëggu lii làmmiñ mooy wax li rafetal ak mbokk tànk mooy dox jëm ci mbokk loxo mooy génne liy suuxat ak mbokk waaw fekk sa mbokk mu bari lewul nga am ca nga jékkati ca la nga am séddu ko ca dañoo am benn bis may waxtaan ak sam papa mu gis benn oto naan ma ne ko oto bii de day jaay mu ni ma oto bi ñaata la war a jar ma ne ko oto bii de ñetti million la ko borom di jaay mu taf gémmiñ gi ni ma laa xawla la quwwata ma ne ko waaw lu xew ki moom otoom di ko jaay loo ci tafee sa gémmiñ mu ni ma damaa xamul nan la nit di def ba am ñetti million te demul safara ma ne ko ah nit liggéey alalam mu lew ko nga ne nu muy def ba am ko te demul safara mun ma xanaa yëgoo waxtu wala yàlla wërsëgalee la ëpp sa wërsëgalee mbokk rek ñu amul ñëpp seen wàll ngi ci say loxo te ku ci mer waxul sax koo joxul mu ne ku ci mer doo nga sag dem safara xaj na ci kon ak mbokk dañ koy suuxat mbokk dañ koy suuxat waroo rek toog sa kër bu sa mbokk jaaxlee ñëw ci yow nga yëkkati benn ñaar téeméer jox ko wala nga jox ko sax loo xam ne boo koy jox danga koy jéppiwaale loolu lislaam santaane ko lislaam dafa santaane ak mbokk ñu suuxat ko am na genn góor gu baax guñ daan wax Abdullah ibnu Xuraasaan ku bariwoon alal la ku bari woon xam-xam ñëpp seedeeloon ko ak maandu keroog bi mu génnee àdduna dafa am genn góor goo xam ne da koo dénkoon xaalis moom nag daf daan def boo ko dénkee xaalis day jël këyit laxas ko ci bind ci saw tur dugal ko ci benn pot léegi nag bi ko góor gi dénkee xaalis balaa bis bii del si mu génn àdduna góor gi ñëw ci njabootam wax leen ko ñu ni ko moom daal waxuñu benn yoon ñu dénk nga ko xaalis góor gi wax wax ba sol njaboot gi ni ko ñun waxuñu lool duñu la jox dara mu dem gisee ak benn nitu yàlla daal di ko koy wax mu ne ko da ngay dem teenu zam-zam soo demee nga jàng fa salaatu ala bi nga woo ko bu fekkee ma nga àjjana dina la wuyu waa ji dem ci teenu zam-zam bi jàng ba sonn kenn wuyu ko moom mënul gëm ni sëriñ bi mu ngi nekkul àjjana ndax ni mu ni mu ko xamee woon ci maandu ak ragal yàlla ak mën a dimbaliwaate kon kooku mënul dem safara mu jàng ba sonn gisul déggul góor bi mu demaat ci sëriñ waxaat ko ko mu digalaat ko beneen teen bu nekk misra Égypte ni ko boo demee nga jàng fa salaatu ala ko bi mu demee jàng foofu woo ko góor gi wuyu ko ni ko noo def ba xam ne maa ngi fii mu ni ko dañ maa wax li may wax pour ma gis la léegi nag xaalis ba ma la dénkoon moom laa bëgg nga jox ma ko nga wax ma fu mu nekk mu ni ko mu tegtal ko fa xaalis ba nekk ba noppi daal ni ko nag dama lay yóbbante am naa sama rakk bu jigéen bu tudd Faatimatu bintu Xuraasaan musuma koo dimbali ci sama alal te nit ku sonn la koo xam ne amul dara la boo demee neel sama waa kër safara si ma nekk tey moom moo ma ci yóbbu ndax li ma ko ñàkkoon a dimbali ba mu demee wax ko waa kër ga ñu dem seet fa leen waxoon ñu gis fa xaalis ba ñu ni kon lim leen wax dëgg la ñu jël ci xaalis bi dem sédd ji seen bàjjen boobu bi góor gi toogee ñetti guddi delluwaat ci teenu zam-zam jàngaat fa salaatu na nabi woo góor gi da ko wuyu daal di koy sant gërëm ko kon mbokk dañ koy dimbali ci xalaat bu xalaatee naka sudul noonu wala mu am lu mu bëgg def waxtaan ceeg nga dig dimbali ko ci xalaat mbokk dañ koy dimbali ci sa wërsëg mbokk dañ koy dimbali ba ci di jaamu yàlla sax di julli di ko ñaanal même su doonul ku génn àdduna Sénégal tàmmuñoo ñaanal kuy dund ñoom balaa ñu laa ñaanal rek nga génn àdduna ñu tere lay lixlaas waaye ba ngay dund tamit dañ laa war di ñaanal sa mbokk buy dund da nga ko war di ñaanal yàlla xiir ko ci njub xiir ko ci jaamu yàlla jële ko ci ay jafe-jafe jàppandal ay mbiram jullit bu ne am sañ-sañ am àq yooyu pour war koo ñaanal sa mbokk ñu di ci bàyyi xel bu baax mbokk mi rawatina nag mbokk mi nga xam ni da dëkk ak moom yonent bi sallallahu alayhi wa wax na benn xadis xadis bu doy waar boo xam ni ci jamono jii ñu tolloo nu nit di def ba mucc dana ma ci jaaxal ndax nee na bu ñëwee sàkku ci yow ndimbal na ko dimbali ndimbal yor lu diis bëgg nga jàppale ko wala am lu muy defar këram bëgg nga dimbali ko ci wala xeet yooyu mu ne na ko dimbali bu ñëwee sàkku ci yow ndimbalul wërsëg bu mu yóbbu këram nanga ko ci dimbali boo ko amee bu ñëwee leb la nanga ko lebal léegi boo ñëwee leb dañ la naan araam na kuy naan sàngara diw da laa ko jox léegi nii wala léegi laa ko génn nangam nangam wax ba génn ci te fekk loolu mu la laaj mi ngi ci yow te yonent bi nee na loolu xàq la ci moom àqam la joo xam ne da nga ko ko amee mu ni bu ñëwee soo jëndee lekk pour yóbbu ko sa kër na ko ci may soo ko mënul na ko nëbb bu mu ko gis waaye bul ko jox nga la bu ko jox sa mukk mu di ko fowee di ci naqaral ay doomam mu ni bul ko lor mukk ci sa xeetu kaw diir togg ga ngay togg xet ga di ko dugg te mu gën a neex la muy togg mu ni loolu it bul ko ci lor lu dul ni la ngay togg bu ñoree na ko ci tànqal jox ko ci bi gën a yéeme nag te bari ci suñu jamono ji nag nee na bul tabax étage bu ko tiim mukk nag te ndax danga koy xañ ngelaw li bul ko def mukk te taa ñaanoo ko ci ndigal léegi nag da ngay tabax étage mu tiim sa mbokk doo yem ci tabax étage mu tiim ko sax waaye suuf saak tojati ciment yaag lépp ci biir këram lay wadd si te doo ko ni sax jéggal ma te tabax bi nga ko tabax te joxu la ci ndigal rek àq la joo xam ne mi ngi mi ngi la koy topp dala koy topp ëllëg yomal xam su la ko baalu kon yooyu mu jar a bàyyi xel bu baax a baax ah mbokk nag borom kër yi dinañ ci jàpp waaye jigéen ñi tamit ñoo ci war di gën di jàpp waaw léegi léeg nga am soxna soo xam ne boo ko déggalee sa diggante ak sa mbokk yëpp tas waaw su nit ñëwee ci yow ñaari yoon sax mu xool loo koy jox commencé naan la kii daa lakkaleeg kii daa lëg-léeg boo ko déggalee ca loolu rek mu xañ la tuyaaba ja ngay am donte sax am na ñoo xam ne suñ la gis suñ gisee sa mbokk ñëw ci yow nga gàntu ko dañ lay ñëw ci yow ay waay dimbali ko wax a wax a wax ba nga jox ko ñooñu nag ñoom ñooy ñi gën ci soxla yi ñu bàyyi xel bu baax mbokk yi xam ne ëllëg julli kenn mënta doon jullit te doo ko def woor kenn mënta doon jullit man ko te doo ko def waaye am na xeeti jaamu yàlla yu leen ëpp tuyaaba fuuf moom julli moom ak woor moom li muy baax baax am na xeeti jaamu yàlla yu leen ëpp doole fuuf te bokk na ci dimbali sa mbokk bokk na ci doxuk mbokk fi tollu nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo bëggee sa wërsëg yaatu soo bëggee gudd fan jarul sangatu jarul di woy saafara jarul nekk ci nit ñi di trian del dox mbokk rek nee na képp kuy dox mbokk yàlla dina guddal saw fan te dina yokk sa wërsëg kon daanaka jarul yenn yu baree bari nga di ko def fexeel bay doxu mbokk rek ak noo ko mën a doxe te léegi nag kenn amul lay ndax soo amul jot pour dem sax am nga téléphone pour woote yéen a ngi ci jàmm wax ñaari baat ñett doxuk mbokk kon jullit bi am na fu ay bonus yu bëree bëri yu mën a am yoo xam ne mën naa yokk ak jaamu yàlla ndax réere mbir ni kenn ku ne li nga jaamu yàlla ci kaw suuf su de su fekkee dañ koy natt di la ko fay soo duggee bàmmeel balaa ngay génn bàmmeel mu jeex kon boo dekkee yombal xam loxoy kese ngay dekkiwaale waaye yii ñii xeeti dox mbokk dimbalante di jéggale di jëllale di muñ di muñale yooyu di sant yàlla boole ci di jéggalu yooyu ay xeeti jaamu yàlla loo yooyu yoo xam ni seenug fay du jeex du xaaj day dund di law ba yomal xiyam heure boo jugee ngir doxik mbokk tànk boo séqi malaaka yi dañ la ciy bindal kër ca àjjana ba keroog nag ngay àgg fa nga jóge toog ba nga xam ni moom ngay toog foofu di wax luy defaru ak mbokk nit yàlla du bind ni nit nangami at lay dund dee yàlla du ko bind yàlla xam nga lu muy bind nit nangami nokki lay noyyi pour dee léegi nag noyyi yooyu ngay nooy toog bi nga toog di wax lu jubale ak mbokk ak luy defar ak mbokk kenn du ko calculé waale ci noyyi yi nga xam ne moom nga war a nooy pour dee loolu moo tax doxu mbokk am solo du ñu guddal nag ndax dañoo xaw a cagadi hmm. ñu ngi jéggalu bu baax guddal gi ah di jégalu bu baax tamit beneen yoon guddee gi ah, di wax ni lépp lu ci wax yàlla na ko yàlla def njariñ wasaare ko ci jullit ñëpp yàlla na ko yàlla def njariñ wasaare ko ci jullit ñëpp ak ci réewu jullit yëpp in uridu illa al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu